yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV maa ngi waxoon léegi de la 15 juin ci la sunu président de la république sant ndawam loolu nga xam ne moom lañ dénk wàllu justice muy ministre de la justice Malick Sall ne ko demal nga yóbbul ma. yóbbante bi ca pencub réew ma boo demee nga waxtaan ci ñoom soutenir ko le juin dax may fàttali le 10 juin gannaaw bu ñu yëgee ne euh, réew ma la ñuy tuddee Côte d'Ivoire ci même mois bi le juin premier ministre ivoirien bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Patrick Hachi ak ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ñoom ñaar ñooñu bisub alxames ci la ñu inauguré euh, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme muy daara joo xam ne dañ ne daara la pour adduna bi international mooy loo xam ne daara yu adduna bi la ñu war faa jàngale naka la ñuy xeexee terrorisme ah ñu def ko it ci benn barab bu ñuy tuddee Jacqueville Jacqueville nag am naa jar na xelaataat yi di jàng tubaab xam réewi tubaab ya xam France fan lanoo fay Jacqueville ah, barab baag boppam noonu lañ ko lañ ko tuddee maanaam foofu lañ ko placé mu nekk ci Côte d'Ivoire euh, académie boobu mën nañ ko tuddee une académie de guerre lutte moom mooy guerre contre le terrorisme France moom xam naa ne réew mu bëgg guerre la jàmm dafa mel ni soxalu ko nu nuy eh, doxalee jàmm soxalu ko yooyu xam naa dama la koy bàyyi da nga ciy ñëw incha allah waaye daal damay wax rek ne am na lu nekk ci gannaaw loolu nga ma laajoon mooy dëgg la am na lu nekk ci gannaaw ndax eh, <coughs> école bi nga xam ne eh, benn académie la internationale dañ ko tuddee une école interministérielle des cadres pour forme ay responsables nationaux de la lutte contre le terrorisme ay hauts fonctionnaires ay officiers supérieurs ay magistrats nga bàyyi xel ñett yooyu bu baax hauts fonctionnaires ay officiers ay officiers supérieurs ak i magistrats maanaam euh, kilifa ci wàllu. ndombo tànk ya gën a kawe di ay fonctionnaires yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu suñu état ak kilifa ya takk ndomboy tànk ya gën kawe ci ñu yor suñu wàllu force militaire ak ñi nga xam ne ñooy kilifa ya gën a kawe di ay magistrat yor suñu wàll doxalin yoon foofu nag bala ma ko jàll dama naan institut bu walla académie bu jara taxaw seetlu la ndax académie boo xam ne élite ba fay génnee ëllëg ñoo yor sunuy fonction publique ñoo yor sunuy euh, forces armées ñu leen tuddee ay haut officier ay officier supérieur waaye it ñoo yor sunuy atte loolu loolu boo ko génnee cim réew dara desatu fa te bu ñu waxee itam académie maanaam jàngu bu mag ku wax jàngu wax jàngalekat wax jàngkat maanaam wax sëriñ wax taalibe bi kon mu mel ni dafa nekk benn académie boo xam ne sëriñ safay jàngale eh, malheureusement ay étranger la ñuy doon ci ñun ndax académie bi danaa la fàttali na ki ko financé mooy la France moo def finance bi lépp ndax dañuy wax ne ci wàllu expertise maanaam ci euh, xelaat ak xam-xam bu aju ci wàllu lutte contre le terrorisme ñooñu ci sut ci wàllu itam hmm, wàllu militaire dañoo jàpp ne ñooñu ci sut armement it malheureusement ñooñu ci moo tax ñu nekk suñuy sëriñ baatub sëriñ nag nga bàyyi ko xel ak taalibe ci la nga xam ne yow sa say fonctionnaire ak ñoom ay taalibeem la ñuy doon say officier supérieur ay taalibeem la ñuy doon say magistrat ay taalibeem la ñuy doon ñu bàyyi xel ñett yi ci wàllu académie bi académie it ku ko wax danga bàyyi xel vision waaye itam doctrine ñaar yooyu ku wax daara warleen a bàyyi xel muy pas-pas ak gis-gis kon mu mel ni sunu ñett ñii di sunuy haut fonctionnaire suñuy officier supérieur suñuy magistrat doctrine bi dafay nekk une doctrine étrangère boo xam ne dafay bàyyi ko ci biti ñu ñëw inculquer ko ci ñoom vision ni ñuy xoolee dund beeg mbir yeeg yi fiy dox en tant que ay magistrat ay officier supérieur malheureusement vision boobu dañ koy jëlee ci biti kon daara ju raglu la loolu laay njëkk a wax ci wàllu ndax daara ji dafa nekk ñetti pàq pàq bu njëkk bi loolu la moom lañ tuddee une école interministérielle te it ku wax interministérielle danga nga waaw ay ministre yoo xam ne dafa am école bu leen lënkale maa du ministre yooyu sunu ministre yii lay doon ak ya ca France interministériel moom ñu ko waxee rek benn état xaw na ay région taxaw na anam ay ministère taxaw na kon suba day mel ni ñun ci d'après académie bi fii di Sénégal fële di Guinée fële di Côte d'Ivoire dañ leen di considérer comme ay ay département ministériel école bii nag mooy nekk une école interministérielle yi lënkale cadre yi kon dafa mel ni gouvernement ba léegi France la sunu réew yi léegi ay ministère la ñuy rattaché ci France ñu bàyyi xel loolu benn. ñu ne it dafay nekkaat centre d'entraînement des unités d'intervention spéciale loolu mooy deuxième volet bi ci académie bi maanaam foo xam ne fa la ñuy tàggatee suñuy unité d'intervention spéciale. yi gën a xarala nga xam ne ñoom dañu am xeej gi ci liggéey bi sunu unité d'intervention spéciale yooyu centre bi ñu leen di entraîner académie boobu la kon mu mel ni sëriñ sa ca France ñooy ñëw di ñu entraîner suñuy unité d'intervention spéciale ci lay entraîner nag kon ëpp na la xam-xam ba pare sut na la yow taalibe rek nga mën a doon vision boo mën a amati nag ci dund bi moo la koy jox doctrine bi ngay dund moo la koy jox loolu beneen xóot-xóot la di benn danger bu mag bu nekk ci académie boobu ñetteelu fàq bi fàq bi mooy poñ bi mooy dafa nekk institut de recherche stratégique gëstu yi aju ci wàllu xarala yu kawe yi ci wàllu yi nu wax gëstu yooyu yëpp léegi ñun kanu koy defal mooy ka samp jàngu booba di suñu sëriñ muy France muy ay recherche stratégique fu ñuy jaar noom bi pexe bu ñuy jaar ba tëral ko ci suuf ba noot ko fu ñuy jaar nag ba ñun suñuy mbir ñu attendre ko suñuy maanaam ñoom seeni objectif ci France ñu atteindre ko recherche yi aju ci wàllu googu yëpp institut bi léegi moo koy joxe ñu bàyyi xel ñett yooyu door a jàll wax ne jamono bi ñuy euh, inauguré académie bi fekk na ñu jot a formé juróomi téeméeri agent ci fànn googu nga xam ne mooy la lutte contre le terrorisme te juróomi téeméeri agent yooyu fukki réew leen ak juróom mooy ñun ñii kat Sénégal ak ca rapidement ñu gaaw kon yégal na ñun am na benn kuréel boo xam ne formel nañ ñu leen ba pare jox nañ leen doctrine jox nañ leen vision sëriñ ba ca France jox na leen ko ba noppi ñu ne nag li nga laajoon dafa am solo mooy ndax amut lu nekk ci gannaaw ci laa jëm si avant ñu koy inauguré nee naa la formel nañ ñu lu mat juróomi téeméeri taalibe bi juróomi téeméeri taalibe bi yooyu séddaliku ci fukki réew ak juróom ñun Sénégal ñii ña nga ca ndax 15 pays yooyu yëpp ay africain lañu waaye itam première ministre boobu nga maanaam ministre boobu nga xam ne mooy euh, yor wàllu défense ñu koy tuddee tene Birahima watara ca réewum Côte d'Ivoire ci biir cérémonie bi dafa lancé benn appel boo xam ne mook Jean-Yves Le Drian ñoo ko bokk lancé appel bi mooy lan dañu wax ne kat ñu ngi invité tous les acteurs de la région ñi nga xam ne yëpp ay acteurs lañu te nekk ci région bi nañu jël pleinement outil bii nga xam ne benn outil exceptionnel la te it nanu gaawal nanu intensifier fattal far farlul seen engagement commun boo xam ne ñoom ñëpp koy bokk contre les groupes qui les menacent ci xeex ak groupe yi nga xam ne ñu ngi leen di menacer hmm, ñu taxaw foofu nag dañ ne nañ ko gaawal nañ ko barlul baral farlul ko yeego yi na gaaw moo tax inauguré le 10 juin jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi suñu président de la république ne ko ministre de la justice gaawal nga yóbbul ma sama ñaari loi yi ci kanam assemblée nationale gaaral leen ko soutenir ko défendre ko kon xam nga ne am na lu nekk ci gannaaw loi bi ndax santaane la bu bàyyi ko ci kaw santaane baa ngi nii ah, te santaane boobu itam euh, bàyyi ko ci sunu kilifa googu di Jean-Yves Le Drian dañu dañu sàkku ci ñoom ne nañ ko gaawal balaa la li ñuy tuddee dugal ko ci comme programme mu deux mille vingt deux mille vingt quatre bi nga xam ne moom la CEDEAO ak tëral pour ñu mën a éradiquer li ñuy tuddee le terrorisme baatub terrorisme ñi ñi xamoon lii gis ndiggante si ni mu gàttee le 10 inauguration le 15 suñu président jël ay ay matuwaayam le 25 ñu yóbbu ko plénière yégoo yéguma kenn yégut lii la jaaxaloon lii la kon gaawaay bi exactement lii la waaye nag eh, sëñ Bamba man jàpp naa ne xeet yu àgg nañ ci ñor foo xam ne ku leen respecté wul ñoom ñu respecté seen bopp ñoom loolu moom bëgg naa bu baax sunu njiit xam ko le peuple sénégalais damay wax sax le peuple àgg nañ ci maturité intellectuelle niveau boo xam ne ku leen respecté wul ñoom ñu respecté seen bopp ko defee na xëy na foofu laa yem du ma dugg nag ci lan mooy terrorisme ndax laajagoo ma ko projet de loi bi naka la ko définir yaakaar naa loolu mooy xool waxtaan wi allah moo tax mu ne naa ci teytalu ba nga àgg ci jàmm incha allah. kon lan moo nekk dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm. maanaam ci ginnaaw patam patamee boobu lan la exactement cest à maanaam lan moo nekk ci ginnaaw loi bi dañu bëgg nga wax ne exactement kon lan la. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.